ginnaaw lancement journée de l'arbre bi ñu doon amal ci dimanche bi ñu génn te njiitum réew mi Macky Sall doon ko amal fële ci Diamniadio kii di ministre Abdou Karim Sall jiite ministère environnement ak développement durable amaloon na ab tukki nemmeeku fii ci dëkk bu sell bii mu àndoon ak délégation bu takku ministre Abdou Karim Sall ñëw na ci xalif général de Mourides ngir sàkku ay ñaan waaye it leeral ko li leen tax a jóg Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ginnaaw bi mu rafetloo seenub teewaay ci dëkk bu sell bi yëkkati na ay kaddu soññee waaye it ñaanal leen dégg nañ kàddu yëpp. mu ne dégg na kàddu yëpp. kàddu yëpp mu ne kàddu yitte rek la kàddu yëpp fa tabaarakallaahu yitte rek la. mu ko jëlee ci président taxawal ko boppam. mu ne bi mu ko jëlee ci président taxawal ko boppam. moom mii mu taxawal mu taxaw mu taxaw ci taxawaayu boppam. mu ne moom mii Abdou Karim taxaw ci taxawaayu boppam. jottali eh, ndigalal président. mu ne jottali ndigalal président. def ci yitte ju mu ne def ci yitte ju mat sëkk. li ci mat def na mu ne li ci mat yëpp li yitte yëpp def na ko. li ci mat a wax yëpp wax na ko. mu ne dégg na ko it bu baax a baax. mu ne loolu mi ngi ci am mbégte bu baax. mu ne du ci dolli yaakaaram bu baax a baax. mu ne ndax loolu njariñal ñëpp la. kon nag eh, ko dégg yaakaar yëpp daañu ko mu ne yaakaar na ne moom dana ko dégg waaye mbokki Sénégal yëpp danañ ko dégg noonu. ñu ñu ko waxee itam incha kem kàttan daan ko jottali ba ñëpp mën cee ànd ñëpp def ci yitte. mu ne nii nga xam ne moom la ko ministre bi jottalee moom incha allah dana def yitteem ba ñëpp mën koo déggee noonu def ci yitte. non non non noonu rek la demee. mu ne noonu rek la demee. mu ne xolam sedd na guy. mu ne ci yitte ji ak taxawaay bi. Eh, mu ne day ñaan suñ borom rek. muy suñ borom gàttanu ñëw taw féex. mu ne ba ni nga ko bëggee lépp gën a yomb. mu ne yàlla yit defal ñu barke ci yëngatu bi. àggaleel ñu suñu yéene jëpp. mu ne noonu rek la nee na mi ngi am mbégte bu baax a baax mu ne taxawaay bi rafet na lool mu ne man na sëkkiit mu ne jërëjëf. ginnaaw bi mu jugee ci sëriñ mun Mountakha délégation bi ànd ak ministre de l' environnement dem nañ seeti kii di Serigne Bassirou Mbacké foofa it gaaral nañ ko seenub liggéey sëriñ Bassirou Mbacké mi nga xam ne mooy porte parole lu yoonu murit rafetlu liggéey bi waaye it wane ne dana ci jàpp lu mu man wàllu jëmbat gi nga xalaat ak ci dëkk bi ak ci diggante ndakaaru ak Touba sëriñ bi nee na ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax ndax xalaat bu rafet la kon nee na ñu ngi la ci sant di la ci soññ te koy rafetlu bu baax te fas yéene ànd ko ak yéen ndax xalaat bu rafet la. boo xam ne bu demee ba taxaw dana soppi foofa te garab bari na ay njariñ lool ndax bokk na ci yi indi ab taw bokk na itam ci liy dàq ñàkk taw te loolu mooy li ci gën a tuuti kon nag na ngeen xam ne yitte ju rëy la boo demee ci yeneen réew yi nga xam ne d'accord dafa yàgg dafa dafa dafa yàgg. dafa yaatu woon dafa yaatu woon. dañuy njëkkanteeg dañuy jaww ji. dañuy njëkkanteeg jaww ji. di jëmbat ay garab di jëmbat ay garab. ngir jaww ji mën a soppiku. ngir a soppiku. kon nag fii. kon yàlla def na. yàlla def na. nii réew mi bindoo. nii réew buñ ci gënee def yitte rek. buñ ci gënee def ci. mën naa dem mën naa dem ba. dëkk xam ne waroon nañu te ne ci biir Sénégal. dëkk yi nga xam ne waroon nañu te ne ci biir Sénégal. te désert mujj di fa dugg. te désert mujj di fa dugg. lépp mën naa dem ba jeex. lépp mën naa dem loolu nag yitte rek. akuk dogu. ak yitte ju kawe. moo cay tax a mën a àgg. kon nag sëriñ bi nee na ñu ngi koy rafetlu bu baax. di ñaan itam. ci barkeb sëriñ Touba. ni ko tàmbalee. ni ngeen ko tàmbalee. te sa te sa kilifa jiite woon ko. Touba bokk te Touba bokk ci dëkk yi mu njëkk a ñëw. wala bi nga jëkk a ñëw sax. bi ngir jëmmal loolu. ngir yàlla defal leen ci barke. yàlla ginnaaw yooyu la ziar ministre Abdou Karim Sall ak délégation bi mu àndal waaye it délégation bi bàyyi ko mairie bu Touba jëmbat nañ ay garab ngir jëmmal projet de reboisement bile ministre Abdou Karim Sall dellu si ci li tax président Macky Sall yëkkati bile projet. gis-gisu président de la république mooy fexe ba Sénégal naat Sénégal nag mënul naat tànk delluwuñu garab yi ci suuf si euh, loolu moo tax euh, président de la république ci gis-gisam dans le cadre du plan Sénégal émergent vert dafa wax sénégalais yi nañu def li ñu tuddee le reboisement durable et inclusif du territoire national na ñu fexe ba àll bi delluwaat nu mu nu mu meloon nañu fexe ba euh, dëkkuwaay yi gën a rafet gën a ñoŋ loolu moo tax mu defal ñu ay recommandations pour que ñu reboiser axe routier yi ak axe autoroutier yi ñu euh, fekk fi nag ci Touba euh, ci ndigalu xalif général bi euh, yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér liggéey bu rafet liggéey bu am solo parce que booy dugg ci ville de Touba li lay njëkk gàttandu mooy alignement cocotier yi nga xam ne moom moo sëq ñaari voies yi nga xam ne moom mooy duggukaayu Touba loolu nag euh, gis-gis la bu rafet euh, ñu si sant yàlla bu baax euh, di ci gërëm bu baax xalif bi ci tegtalam ci ndigalam xam nañ ne li nga xam ne moom moo ñu yëkkati jiitu nañu si parce que mu ngi ci def lu lu mucc ay mu ngi ciy joxe ay tegtal li ñu fi def tey wane na ko tey jii. Euh, ci dans un format bi nga xam ne format bu réduit la euh, def nañu symbolique bi euh, ñëw samp garab fii ci Touba te xam nañ ne bu ñu demee dinañ ko continuer. président de la république nekk na président bu ëpp gis-gis dans l'histoire du Sénégal indépendant ci wàllu environnement ak ci wàllu li nga xam ne moom mooy protection du patrimoine forestier maa ngi fàttali sànq Sénégal mu ngi am 186 forêts classées. forêt classée bi ñu njëkk classé mu ngi woon dans la région de Ziguinchor sa euh, date doctobre octobre 1930 moom mooy forêt bu ñu njëkk a classé euh, ci 136 euh, forêt classé yëpp cinq forêt rek la ñu classé après les indépendances bi président de la république ñëwee ba léegi avant muy ñëw forêt bu ñu mujj a classé mu ngi daté de janvier 1968 xam ngeen ni loolu yàgg na président nag bu ñëwee ci diiru at yi mu fi toog fas yéene ci fan yi ñu jëm classé lu toll nii euh, fukki forêt classée euh, loolu yaakaar naa ne président de la république li mu waxoon le trente 31 décembre 2018 euh, mooy que ni il faut que ñu préserver li nga xam ne moom mooy suñu patrimoine forestier su fukkee su fekkee ne bëgg nañu préserver intérêt génération yi nga xam ne moom mooy ñëw loolu nag président la république firndeel na ko ci wàllu taxawaay ci wàllu gis-gis mais firndeel na ko ci wàllu ambition euh, ku créer agence bi nga xam ne bu day noonu l' agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte jox ko ay jumtuwaay ne ko lu ñu bëgg mooy ñu delluwaat forêt bi moom ñëpp ñu delluwaat euh, reboiser forêt bi yëpp euh, dafa am loo xam ne lu ñuy tuddee afforestation ak reforestation afforestation ak reforestation mooy dem foo xam ne musul am garab nga def fa garab loolu mooy afforestation reforestation mooy dem fi nga xam ne musoon na am garab nga delloo fa garab donc loolu mooy liggéeyu agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte. Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma moom mi nga xam ne moom moo yor commission bu environnement ci mairie bu Touba ginnaaw bu mu rafetloo dikk ministre bi fii ci Touba xam la na ne Touba yàgg na ci jëmbatum garab waaye it mi ngi soññ kii di ministre bi ngir mu bañ a wàcc yoon wi mu jaar. bis bii nekk bis boo xam ne bis bu bis am solo la parce que buñ ne ñun ñëpp nañu jóg jëmbat ay ay garab te kenn ku ne xam importance bi nga xam ne garab am na ko président jóg njëkk loolu. waaye foog naa ne amul kenn koo xam ne gën nga gën nga yell kilifa diine yi ci ñaax njaboot gi ci ñoom ñëpp ñu tax jëmmat ay garab waaye surtout ci ñu koy toppatoo kon foog naa ne démarche bi mu jël euh, démarche bu baax la ndax ñoom mën nañoo tax ba mboolem njaboot gi kenn ku nekk jël mbir mi jàppe ko jàppe ko sa yëf def ci sa sa kamtalaay kattan li mu ko defee rek Sénégal gépp incha allah dina dina euh, dina verte. li ko xam ne ko aussi fii wax na ko ci discours am xam na ko. fii moom tàmm ñoo def lu mel noonu ndax dëkk bi bari na ay garab te lépp taalibe yi ñoo ko jëmbat ci ndigalu sëriñ bi ci histoire tam bu demee Touba Belel jëmbat bañ naan Sëñ neen na jëmbati garab loolu yàgg na foog naa 1974 la woon donc loolu lu lu yàgg-yàgg la te ba na nga ni boo fa demee garab yi ba nga fa kon loolu foog naa ne tradition yoon wi la kon nag li nga xam ne bëgg na ko dee aussi ci autoroute bi loolu moom ñu ko xamal ne ko kilifa yi buñ ci jàppee rek incha allah dama ko bëgg dana ko ko dana ko ne amee kon moom ñu ngi koy ñaax ci vraiment yoonu bi aw mu yokk collaboration ak ñoom rek muy waxtaan ñoom parce que ñoom mën nañoo yëkkati njaboot ci li nga xamante ne bii njariñu réew mi la ndax réew mi leen moo leen yor